grande instance bu Ziguinchor jël na dogal ci atte bu mu doon atte ñi ñu tuumal ne laale lañ ak jéeju nga xamante ne moom moo xewoon fële ci àll boo fa bayoot le 6 janvier 2018 ba fukk ak ñeenti nit ñàkk ci seen bakkan ci noonu tëj na kii di Oumar Ampoy René Capain Bassène ak kii César Atou Badiam nga xamante ne fii ci tribunal bi seen diir dund teg si ñu war a fay amaan bu toll si ñaari fukk million njaboot ñi nga xamante ne ñoom ñoo doorle mu doon bi nga xamante ne dafa diis te ànd ak kaddu ñi nga xamantene ñom ñoo nangoo addu ci suñu micro. mais wax leen ñu yeen yéen miy ñëw fii sax li jaaxalu leen way bay leen way li du di koy nañu xanté deug waaye ne dinañu garder wat encore espoir parce que yëf yi dem na cour d'appel appel dañu wax ni buñ ko juger cour d'appel appel ko première fois ci cour d'appel appel du question de lenen la dafa am lu mu symboliser motax ñu juger ko cour d'appel appel ndax li ni dina dellusiwaat ko cour d' appel incha allah te yaakaar nañu wax deug yalla ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk juge yi nekk cour d'appel ñu rendre leneen lu dul verdict bii gis nga jàpp doomu adama tej ko ngiiru dundam dem tëdd sa biir kër ngay xool sa njaboot yomb na trop waaye am na ki nga xamante ne moom mooy juge bu mag bi juge bu mag bi mooy yàlla yàlla rek mooy juge bu mag bi moom kese en dehors de yàlla amul beneen juge bu mat juge bu teg verdict rek mën nga si jaar jumte kon ñu ngi leen di accordel ni xëy na jumte la waaye yaakaar nañ ni cour su cour suprême waa cour cour d'appel dina casser verdict bi ba pare jox leen am ngeen lan moo gën a doy waar yéen ngeen jàppandoo mbooloo ngeen jàpp si ñetti personne ngeen jàpp si ñaar ngeen ne leen seen giiru dund kenn ki ngeen bu ko collé parce que lan la moom si àll bi la nekk ngeen ne jugé par contumace lii dafa dafa yomb trop gis ngeen man damay wax chaque jour Casamance yi di ko wax sénégalais yi gis ngeen li daal ñii mënoon nañu daal ñun parce que ñun ay waxkat lañu parce que dañuy bañ te Sénégal bañkat la ñuy bañ

lo xamanteni sax xamu ci ndaxte li buñ ci yegg wax na ko gouvernement def na rapport jox ko directeuram am te directeur am na fi te loolu ça été confirmé bien avant djey ji am nit koku non mu wara a bis ni ki tay ñi naan da nga nar a tey du sa giir dund te pense que neex na nga doon teg si ci lo xam te laaloo wax defoo ko defaaloo ko kon li mu man bok li ma wax c'est une question d'honneur nit do tëdd ci lo xam te ko ñun tay ji bu ko defoon man je serai la première personne à aller dénoncer parce que fitna euh, jëy affaire ñun ñun ñu ci loolu. 97 lañu lañu lañu joggé la ñuy jógee ci Faye ñëw dëkk Ziguinchor du suñu coobare suñu baay daf ñuy yar ak suñu ndey ci lo xam te ne jàng loo tax mu teg ñëpp ci ci eh, école jàngu ji pour ñam ci diiné am ci yar su fekkee ne yoon kessé lañu wax au nom du droit rien que le droit avec des magistrats responsables nous respectons toutes les autorités judiciaires, militaires et autres. nañu enquête ba ay torture même si dem sa mère, tout ça il y a une vice de procédure totale notoire l'indépendance de la justice ce sont les hommes les textes sont là mais quand on est faible quand on passe à soi quand on veut parce que ay promotion lañ c'est ça parce que dans l'enquête préliminaire il faut qu'il y ait résultat le compromis que le colonel Jack l'a dit Peut-être ko fi hôtel pour parler compromis Moi, accepter ni le def juger après on va le déposer Dakar de Dakar on va on va le libérer avocat bi pas du def appel En empui il appel immédiatement mais il day au niveau de la MAC discuter avec René pour le convaincre de sursoir à sa décision de suicide si il euh, fa résultat positif il appel mais il n'a jamais dit qu'il n'y aura pas d'appel lii mooy ambiance bu tiis bu nga xamante ne moom moo amoon fii nii ci tribunal grande instance bu Ziguinchor waaye mu doon tamit mbégte ci njaboot ñi nga xamante ne ñoom tribunal daf leen bàyyi ñu ñibbi seen kër ñu leen di xamal ne am na ñaar ñu nga xamante ne tribunal daf leen condamné juróom benn weer ñu nga xamante ne duñ ko tëdd